maam bu sa jaara nuy ji na ay dëkkandoom nuy ji na njëkki jigéenam soxna anta njaay mbokkam taala anta maam maaram waa bëgg a delloo njukkal soxna jaara rek lott nañ ci sax waaye ñu jëm ak sunu kàttan ak sunu doole dajale sunuy xéewal rek waa budget bi ñun arrêt Jakarta la ñu yor chaque màggal bu ñëwee ku nekk génn la nga denc ren sas yi ñun ñi kenn ku nekk jox nga fukki junni joxe nañ ay enveloppe am na ay autorités yoo xamante ni jox nañ leen dooleel nañu daanaka am nañ 900000 démb compté nañ 900000 avant jigéen ñu dugg ci démb ak tey li fi ñëwaat démb ak tey li ñëwaat ci ay xéewal daanaka buñ ko boolee dana mat 1 million wala sax dana ko wees suuti. boobaag léegi ñaata at yéen a waaw xaw na yàgg nag daanaka mën na juróom-ñetti at ndax bañ koy démarré ñu ngi ko démarré woon ci paquetu ndox taxaw ci tali bi ak cafteeru jënd kaasu azata daawuñu am sax njëgu paquetu kaas léegi yàlla dimbale nañu ba ñu ngi yeew ay nag di def ay baas di togg ay cin ñaar fukki cin ak juróom ak lu teg daanaka teg na sax lépp daal ñu def ko rek ngir jëmmi soxna jaar yi ak màggal gi waa soxna yi ñoo bokk dëkk ñii ñoo dëkk ak ñoom ci arrêt bi ñii suñuy koñ ñun spécial lañ dëkk parce que fi ñuy kal nekkul ñëpp fi lañu dëkk suñuy jigéen lañ bokk ci yëf yi ñoom it jël seen doole def seen i sas ñoom junni junni ñoom jigéen ba pare xotti seen i otes ñaw lépp ngir ngir sargal soxna jaara ci ci ci bësam bi jàppale seen i ci amiñ waa trois jours lay doon ndax démb lañ démarré ak tay mais suba dañu noppalu ba ànd ak dogalu yàlla ajjuma incha allah bu ñu retourné dese nañ fi benn nag ñu def ko ay xéewal ay añ daal leen koy jox jox leen ndox yi sedd yi daal di tekki baas yi ñaan leen te ba déwéne teg jàmm non euh, euh, tey togg nañ ay ceebu yàpp yi baax togg dëxinu yàpp incha allah guddi gi dinañ togg ay tufe suba ak jàmm moom comme ni ma la ko waxee rek comme bëriwuñ defuñ dara dañuy dallu danañ def benn ci ni ceebu jën bu baax rek siyaare ko gars yi rek bu gannaaw suba nag ñu defaat ceebu yàpp defaat dëxinu yàpp. merci a jërëjëf. Mambu sa jaara nuyu ji na ay dëkkandoom nuyu ji na njëkki jigéenam soxna Anta Njaay mbokkam taala Anta Mamaram.